Yeah. toujours dans votre actu du jour de ce 7 novembre 2024 la campagne bi la de desandi toujours dem foofa ca Kolda ginnaaw nag bi nga xamante ni Pastef jaar fa di coalition Taku wàllu Sénégal ànd intercoalition Sam sa kàddu di ñoom APR Macky Sall PDS Karim Wade Idrissa Seck ak ñi nga xamante ni mooy ñoom Barthélémy Dias ñoom Bougane nañ fa une forte mobilisation de mel ni d'Al fulaadu yëpp tey jii ñii la ñu àndal opposition bi nañu xool ji le grand meeting bi nga xamante ni caravane bu jéggi daye xamante amna am ci foofa ca Kolda ki di sen euh, représentant di Moussa Baldé nañu xoli vidéo bi dellu soir. kon yaakaar naa ni ñoo ko gisandoo muy une forte mobilisation une foule immense boo xamante ni ñoom ñoo drainé wu foofa ca Kolda muy le Fuladu pour soutenir coalition bi nga xamante ne mooy takku wàllu nekk ci opposition bi intercoalition Sàmm Sa Kàddu Moussa Baldé daal di koy jiite ànd ceeg ñoom Barthélémy Dias Macky Sall Idrissa Seck en tout cas muy une campagne boo xamante ne daal ça bat son plein ginnaaw bi nga xamante ne ñu ngi ci deuxième tournoi bi muy deuxième semaine bi en attendant troisième semaine bi ñu jëm ci élection yi le 17 novembre en tout cas Kolda lii la wone daal jëmale ko daal ci takku wàllu en tout cas muy une foule immense. violence boo xamante ni nemmeeku nañ ko daal foofu ca Kolda